Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est ay qui Cine TV

Euh, loo xam ne dinañu mun a ràññeekoo par rapport ak au niveau national euh, ci xeetu way laago Sénégal yi ñu ne Fatick moom moo war a aaye li nga xam ne moom mooy journée internationale des personnes handicapées mu mu dajeek tamit neuvième édition semaine nationale du handicap kon donc foog naa ne Fatick munul lenn lu dul waajal ko munul lenn lu taxawu ko mënul lenn lu tamit wane ne lii ndénkaane la boo xam ne du Fatick moo ko moom mais Sénégal moo jël benn bés dénk ko waa Fatick pour waa Fatick téyel ko ko donc loolu lañ si am comme gis-gis waaw wàccaa yi sant yàlla ginnaaw li ñuy wax naan boo amee kudd dool ak suñuy kilifa depuis bi nga xamee ne ñoo ngi ci tàmbali ba léegi mois de mai ba léegi jéego yi ñu siy def yëpp ñoo ñu siy accompagner bañ mun a yegg si fii ba am confirmation journée bi kon donc lépp loo xam ne tey moo bés bi laaj na ko ñoo ngi ciy dox di ci wax di ko di ko jéemal rawatina nag mu doon loo xam ne mbégte la si ñun tey bu ñu demee ba Fatick ay e ñu dégg ki nga xam ne mooy président de la République pour une première fois tey mu àddu ci li nga xam ne moom mooy bés bi nga xam ne moom lañ jagleel way laago Sénégal yi ñu war koo defee fii nii ci région bu Fatick. waa activité yi ñu war a def nag bokk na ci li nga foire artisanale bi maanaam fexe képp koo xam artisan handicapé Si bu nekk ci biir Sénégal vous devez représenter sa région wala nga représenter national nga ñëw pour voir sa xerañte ci wàllu mbir mi nga xam ne artisanat te nga ciy yëngu ñu exposer fenee ci siège handicapé donc euh, du du 2 au 4 décembre incha thème bi nag ñoo ngi wax ci ay wàllu euh, ñoo ngi wax ci ay euh, ñoo ngi wax ci wàllu euh, ñoo ngi ñun li ñu jàpp moom mooy ci li nga xam ne mooy jafe-jafe way laago yi lañ gën a waxtaane mais li nga xam ne moom mooy xerañte way laago yi tamit bokk na ci li nga xam ne moom lañ gën a war a mun a waxtaane parce que ku nekk xam na ne Woylaago dañuy laajte pour que mu fexe munal boppam pour que mu fexe xeexal boppam li ñuy wax autonomisation donc buñ ñu demee ba Woylaago yi amee taxawaay boobu noonu je pense que ne ci day jot tamit ci Woylaago yi ñoom ñu wone li nga xam ne ñoom loolu yàlla bàddi na leen ko te ñuy woote pour ñu mun leen ko dégg. waaw liggéey bi si Woylaago yi fii ci Fatick ñëpp xam nañ ne nguuru Sénégal am na loo xam ne da ko jagleel Woylaago yi ci li nga xam ne mooy ci wàllu ndimbal ci wàllu taxawaay taxawaay boobu noonu bokk na ci carte d'égalité des chances bokk na ci li nga xam xam moom mooy bourse sécurité familiale yi bokk na tamit ci li nga xam ne mooy couverture maladie universelle fekk ci loo xam ne tamit moom la ñuy wax naan programme RBC réadaptation à la base communautaire boo xam ne réewu Sénégal yàgg na cee dox ci loolu la sukkandiku pour gën a dimbale euh, li nga xam ne moom mooy way laago yi ci wàllu ndimbal ci wàllu xam-xam ci wàllu tàggat ci wàllu caada ci lépp loo xam ne rek sequ euh, moo ngi ci biir tënku ci biir carte d'égalité des chances yi foog naa tàmbale nañ ko démb ci RBC soog a ñëw pour li

Euh, la célébration nationale l'organisation donc revient à la région de Fatick moom moo ko war a daloo ren te ñu jàpp ko samedi le 3 décembre pour vraiment ànd ci ak acteurs région de Fatigue, pour mën a jëmmal journée boobu comme ni ko kilifa réew mi ak euh, ñi vraiment domaine bi yëpp voilà une journée aussi ne organisation ne mobilisation te mobilisation aussi ku ne xam na ne ay moyens ñoo def te ci kaw moyens vraiment japonais naa un service ay services ak aussi aussi loxo état jógu ci à travers donc euh, ces différents départements euh, ministériels ñu ngi leen di jàppale vraiment pour jéem a xool nan la ñuy mën a def gunge leen xëy na sax li naan bërëngu suuf mais am na loo xam ne dinañ ko ci def ànd ci aussi ak les partenaires parce que tamit partenaires yi euh, dañuy ñëw à contribution pour mën a jàppale donc action bi état di def au niveau donc des différents territoires te ci kaw loolu aussi jàpp naa ne bi yoon dañ leen gunge pour réussir donc l'organisation. Éducation sur Sine TV santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV.